ñeent ci Dakar Plateau ak Médina ñett ci Géejawaay ñaar ci Mariste benn ci Gueule Centenaire Amitié 3 Point E HLM Ouakam Almadies Ouest Ngor HLM Grand Yoff Xaar Yàlla Cité Magistrat Kër Massar Pikine ak Tivaouane Peul ci région yi am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñeent yu tëddee nii fukk ci Saint-Louis ñett ci Kédougou ak Kolda ñaar ci Kaolack Kër Massar Ngapparu ak Mbour benn ci Foundiougne Saly Médina Yoro Fula Sakal ak Thiès ñaar téeméer ak ñeent fukk ak benn ci malade yi entrée woon hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen doon topp ci kër yi wéer nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñeent fukk ak juróom-ñeent ñu ngi ci réanimation juróom-ñetti malade ñoo génn àdduna bësu démb altine benn fan ci weeru mars mi nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wàññi na fanweeri junni ak ñeent ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak ñaar ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom-ñeent ak ñeent téeméer ak ñaar wér nañ ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoo génn àdduna mu des ñeenti junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak benn ci lalu hôpital yi ak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 ci teel a dem dispensaire wala hôpital wala di jokkoo ak seeni i docteur saa bu ngeen nemmeekoo ko yaram bi dafa sutante ñi nga xam ne aussi jot nañu ñàkku bi ñàkku bi ñu jagleel mbas mi tàmbalee ba léegi ñu ngi leen di fàttali digle yi di téye seen carte di ko denc balaa muy réer di topp rendez-vous rendez-vous bi nga xam ne moom lañ def ci carte bi nañu continuer nañ maanaam nañu wéy di topp ndigal yi ñu leen di jox ci mbirum xeex mbas yi mbas mi niñ koy waxee bés bu nekk ak niñ koy diglee bés bu nekk ministère la santé et de l'action sociale ngi leen di sant di leen gërëm